asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 14 juillet 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb lay la ñuy xëy dooreete ko mu mel ni ki yëglikaay ba nag tey ka mu xëy wan ñu ko ci xëtamu njëkk mooy Tapha Tine ni daal Tapha moom pare na maanaam bu ko jaree sax wàññi pirém ngir mën a bëre daal fi mu nekk nii daa mel ni yëglikaay bi di sunu làmb tey loolu la xëy tey ñëw defal ñu ko fa nga xam ne nii moom moo di xëtam mu njëkk ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di sunu làmb mu mel ni ki ki nga xam ne nii nag moom moo di di Sa Thiès moom ñaari at yoo xam ne nii daal wala boog ñaari saison blanche yoo xam ne def na ko ba pare amab defet te booy ñang tegoon ko ko mu mel ni fi mu nekk nii nag moom fu muy noyyi waate daal lay wër maanaam amab combat ba mën a bëre mën a génn ci yooyu nga xam ne nii nekk na ca maanaam ci defet ak ay année balance yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko mu mel ni ki nag keneen koo xam ne nii ab dëkkandoom la muy ki nga xam ne nii moom moo di guy gi diggante ak rëg-rëg daal yëglikaay bi xamal nañu day daa mel ni fi mu nekk nii daal ay réglage ñu nga ca ngir finaliser organiser li nga xam ne nii moom moo di combat ba waaye mbir ma nag yëglikaay ba xam nañu ne day daa mel ni rëg-rëg daal am na ay intention yoo xam ne nii daal yu muy nëbb la yoo xam ne waxu ko sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii moom fa mu nekk zone ba baaxul maanaam daal bu bëggee dégg dëgg moom fa mu toll daa ni lu rouge la maanaam lu xonq la muy Elton la ko waral nag mooy defat yoo xam ne jóge na ca ak année balance yoo xam ne teglante na ko moom mi nga xam ne nii moom moo di mbërum géejawaay ma yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ni kii noonu keneen koo koo xam ne nii moom donte wala boog fi mu nekk nii daal la muy wër mooy fukkee lim victoire am yëg likaay bi di suñu làmb xëy tey ñëw wax nu ko muy double moteur bu rëbës mel ni ki nag fi mu nekk nii daal bu bëggee dégg-dëgg loola daal lay wër mu mel ni ki moom double moteur mooma nag bu nu demee fa nga xam ne nii moom moo di ca Leewtoo TV fa la ñu koy fekk moom ak Quench mel ni ki démb nag lañ doon def seenu jàkkaarloo bu bëggee dégg-dëgg nag daal Baba Jaw borom càm production moo fa jaar tëgg combat ba ñaari mbëree nag waxante nañu kii di Quench nag moom attaqué na double moteur ndax ne na ko li am ba des daal bu dee bëree maa la ko dàq bu dee doole maa la këpp te buñ ca yegee di nga xam ne làmb ja du seen koñ yàgg naa ñëw seen koñ nga di ma tappaas yàgg say supporter waaye di xam ne ba si góor moo koy bay dubul ne ko da ngaa juum de man mosumaa nekk sa fans mosuma laa tappaas la nga doon def dong laa reconnaître waaye buñ ca yegee di nga xam ne man ak yow du nu benn te bu ñu sëggoon léegi fi ma wane la yow Quench mel ni kon daal démb moom ñaari ba mu saf-sap dañ fay jóge nag làmb suñu làmb moom buñ fa delloo kan fay fekk moo di jax jax nag moom bu fekkoonte ne dañ fay siiwal ne waa GFM dañoo taxawal Alaaji Mbay ak buuse bu yeboo daal teey ca te dal ndax ki nga xam ne moo di jag si moom xëy na di delloo àllaa ji may place di ko recadré yëglikaay baa xëy ñu wax ñu ko ci xalima ak Boubacar Niang moom jag si nag la mu xamle daal mooy àllaa ji mbay day digganteem ak Big Pato taxawal naa ko te ci sama première journée la ñu fas yéenee bëre kon képp koo xam ne ne nga da ngaa taxawal combat àllaa ji mbay moom ak keneen booy boo nga teey ca lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom wax na Paul Maurice la ko tax a bàyyi lamb muy Théophile Sagnam moom nag wala boog Théophile Sagne moom mooy grand frère am nee na ñoom famille ba daal ñoom ñoo toog waxtaan jàpp ne Paul daa war a bàyyi lamb ñu wax ak Paul Paul daal di fa jaare bàyyi làmb ja yëglikaay bi di sunu làmb fa la xibaar booba dal di xëy tey nekk mu mel ni kii nag ka nga xam ne nii moom moo di buuse ma ñuy wax diggante mag àllaaji mbay yëglikaay ba ca fa ñuy wax tuus moom ñëw na fa dinu xamal ne buuse daal internet bi moom bëgg na ko wala boog waa internet bi bëgg ko waaye loo ci mën a dégg moom bëri na fa daal ay tànk yëglikaay xëy ñëw tey wax nu ko dañ fay jógee dem fa nga xam ne nii moo di record record moom dañuy dem ca combat guy gi ak ka nga xam ne nii moo di rëg-rëg ba tey mel ni ki nag guy gi moom donte combat ba am na lu ca des daa mel ni waa këram moom ne nañ ko nag léegi daal yokkal say entraînement nekkal ci liggéey bi maanaam daal di daas di fanaanal moo gën a wóor ndax nag am na loo xam ne nii daal bette moom da koy def mu mel ni waa GFM nag moom soo bëggee dégg dëgg naru ñoo yem foofu ndax am na leneen loo xam ne ñu ngi ko teg ca roqo ba maanaam stan bàyyi muy diggante Sa Thiès rakki Balla Gaye ak Garga Mbossé rakki Zos mu mel ni kilo la itam ñu nga ca wala boog ñu ngi ko teg di xaar leneen loo xam ne nii moom buñ ko doon xaar buñ yeboon seetaan neneen nuñ def ndax nag abu nduur moonu xëy tey xamal ne daal combat ki nga xam ne moo di Eumeu seen ak Bombardier daa mel ni combat ba daal nekkul lu existé abu nduur nag moonu wax lool maanaam lañ ca doon wax daal daa mel ni combat daal kon bu bëggee dëgg-dëgg taxawagul Bombardier mooma nag écrém ba moom di mbuur Bombardier nga xam ne moom la jiite quatre victoire trois défaites benn match nul loolu lañ jotagoo def ba saison ba démarré ak fa nga xam ne fa la taxawee muy cinquante pour cent de noonu la ko yëglikaay bi tudde waaye yàgg tey day taw na neex neex neex sax loo ci mën a dégg daal tey moom biddanti laa def ndax xam nga bu tawee nag affaire yi day waaj mbir mi neex seddaay bu neex dugg yàgg mara waaye cay yàgg bu la fekkoon nga denc jéeg dara du ko weddi. mbokk waa Leewtoo TV leen nuyu di leen gërëm leen sant ba waxe ngeen àndoon di la ziar. maa lay fay Ndeye Koumba Fall di la delloo ziar di nuyu ñëpp ñuy suivre ci Leewtoo TV fu ñu mën a nekk si àddina bi ñu leen di bëgg di leen ñaanal jàmm di ko saaku si ñoom. naan sa maillot moom rafet na moom. waaw merci ko Algérie ah, comme ni ñu koy xamee woon bu njëkk waaw di nuyu Sénégalais yi nekk Algérie yëpp parce que ay doomu Sénégal a nga fa di jàng di daan seen doole tey moom fa laa génn ak seen ñaari étoile maanaam seen ñaari coupe d'Afrique di leen féliciter encore fois parce que lépp fair la mais xam nga rek comme ni muy wax rek waa Petersen yi aw seen fay. Mm. ñoom saa yu ma fa jaaree rek. ñu ne ma waaw moo bii rafet na yóbbu ko quoi kon maa nuyu Jib Sène ak ñoom Babacar Mour Lam ak gaay ak Cheikh Lambaye gaay fa nekk yëpp. man tey maa ngi nuyu Balla Diouf ndax moo ma jox mayo bi nii nuyu banaan si bi si si fête des mères yi. Babacar ah jox ma sama bos. Mohamed Baye Mohamed non yaag Balla moom yal na yàlla def jàmm daal. Amin Babacar ni ñëw nag euh, si jàngatu arène bis ak euh, sunu laam sunu laam mag moom dafa xëy dala ki nga xam ne mooy borom takk si lit Tafatine Tafatine nag moom nee nañu estafam euh, daal li ñu gis mooy def ay concession maanaam wàññi seen ñëg lu bu baax a baax a baax pour rek Tafatine mun a sëgg bëre ren Babacar waa fi mu nekk nii daal li ñuy wax rek waaw moo fi nekk fi mu nekk nii moom li fi des daal mooy moom yaakaar naa ne gëj na bëri ñëpp xam xam na daat ba 2018 la woon moo kii kii ni senior tey defe naa il est l'heure que mu am combat te teem ñi mu war a bëri am na ci ñoo xam ne actuellement ñu ngi am ay adversaire kon defe naa ñaari fi des muy Lac muy Boy Niang kon defe naa waxaale moom ba wàññi prix wala yu mel ni kii noonu ngir mu mën a bëre des fois mbir mi da koy jar nag parce que olof ne na taal bu téye tàkk du nekk dañ koy uppee ngir nga am safara nday kum du faal Babacar na suñ jógee nag si tafaati nañu dem si combat Gouye Gui ak mi ngi si dernier réglage yi waaw dernier réglage waaw ñu ñaar rek kon dernier réglage yooyu réglé wu ba lépp mën a taxaw xam nga pour ko defee combat bi mën a am parce comme siiwal nañ ko pare moom li ci des mooy fexe ñaari mbër yi bëri rek parce itam comme li rek fi nekk nii moom amateur yi daal seen xel xaw naa ne war na gën a mën a dal ndax combat gaa yaa ngi koy dox te itam am nañu yàq ni ci bare bare dina taxaw mm-hmm. euh, junaab tamit nga ñëw si carrière ki nga xam ne moom euh, kii daal ki nga xam ne mooy Sa daal mi ngi wër daal li nga xam ne moo mën a relancer carrière am. fi muy jaaraat ba nooy waaw loolu moom am na parce que boo euh, dafa bi mu mujjee dafa metti trop si moom digganteem ak Boy Niang ñu jógee ci ñuy xaar mu bëriwaat yàlla def mu def ñaari année balance kon defe naa tey dina xoolaat fu muy jaar bu jógaat waaw Sa nag si lamb moom defe naa ne comme li ñuy wax rek mbërël bi nga xam ne du ñëw si lamb mm. tamit Elton mooy le bull mooy le bulldozer de l'école de lutte Balla Gaye mm-hmm. ne ñun daal ki nga xam ne mooy bull euh, Elton moom entre mi ngi diggante défaite ak saison blanche neen daal mi ngi en zone rouge maanaam zone de turbulence. su dee avion waaw dee avion. voilà <laughs> taxawee baaxul. waaw li am solo daal mooy que ni moom it mbër mi nga xam ne ni defe naa daa bokk si làmb te wane na lu tax ñu ne mbër la moom Elton parce que du ragal te itam buy bëri dina ci def fulam faydam ak jomam te itam ku ko bëgg a daan moom xam naa ne moom li ñuy wax euh, da nga wal say bakkan. Mm. foom ci sa yére ndax donte si défaite la jógee defe naa défaite ba kii rek rëg-rëg ba muy bëri affaire fara ba tey bëreegu ko mm. combat ba métti woon na taroon na demoon na sax bay waaj a jeex mm. far yàlla may rëg

andi woon nañ leen ñaari mbër yi Adrien Senghor mm. euh, safra terrain gaal gi suur boobu maa nga foon muy alaaji mbay muy big bateau te Jax moo defoon lool pour annoncer seen combat que ni taxaw na mm. ah bu ñu xëyaatee dégg tamit ne xëy na GFM dafa taxawal alaaji mbay ak Bousse waa dina doon lu xaw a jaaxal ñu bare bare bari ñu ci xamoon dara ah moo tax xëy na Jax si génn nag teel a yëg lu wax ne daan alaaji mbay moom mu ngi ci ay ci ci ay dispositif am la ne te balaa mën a dem fenn bëreel ko ba pare ah li ñuy wax nag mooy que rek defe naa ne bu fekkente lu ñu xaatim la ba pare moom la ca am mooy rek mm-hmm. mm. euh, xam ne moom mooy euh, record daal ni nga koy dox mais nag ñoom na ki nga xam ne waa kër Reug Reug nee nañ nag na guy gi waajal boppam bu baax ndax daal pour na préparer daal ndax combat am lañ

sérieux ndax du caaxaanee làmb par rapport ak li ñu gis ci moom. Mm-hmm. fan itam nga wax ni que mooy GFM entertainment mi ngi pour taxawal combat Sa ne mooy Garga nañu daal pour le moment dañ euh, euh, ci combat ki nga xam ne mooy Gouye Gui waaw fi nekk nii daal kon ñoom dañuy taxawal bu en attendant di xaar waaye loo ci mën a dégg daal loolu ñu bëgg a def yëpp. dama naan leen yàlla na réussir parce que lépp amateur yi soxla nañ ko te ay làmb la yoo xam ne ni yu neex neex la et puis li ñuy magnifier waat wala boog man li may gën a rafetlu waat mooy retouru CFM entertainment parce que li yëpp lu yokkaat làmb la luy tax mbër yi gën a mën a bëre la parce que daf ñooñu ay groupe lañ yoo xam ne ni tey ay groupe de télévision la xam ne dañuy produire xam nga di def wàllum production kon defe naa bu ñëwaatee naataango ya fa muy Abou Ndour ak ku mel ni suñu grand Lamine Samba ak Mao Cissé ma nga xam ne moom lañ teg ci bopp ba moom tamit Mao di ko wax ne que moom euh, dafa am loo xam ne ndey ko man dama koy bëgg si doomu aadama nit la bi nga xam ne ku simple la ku discret la te ku am yar la Mao Cissé maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit suma xarit seen photographe bi Baye Niass waaw. ñu nee ñu combat boobu amul euh, waaw comme li ñuy wax rek ah euh, amul waaye yàlla na yàlla na yàlla def mu am abu nag comme la mu wax rek xam naa tey ay gëstoom la xëy def ba indil ñu xibaar boobu muy combat boo xam ne annoncé nañ ko fa nii dégg na presque taxaw na la ko tere woon a finaliser mooy Bombardier bu nekk fara France ba tamit amoon nañ ko ay xew-xew moom mu ngi waaj ñëw Sénégal pour ñu finaliser combat boobu mais li ñuy wax rek bu fekkente ne loolu moo ko teree taxaw yàlla na yàlla def su ñëwee ak jàmm am na ñu nga xam ne intéressé na leen muy Bombardier muy Eumeu Sène. dara na benn euh, jaxoon na de parce que ñoom ñaar daal wax jële muy gudd ak gàtt yëpp mayante wuñ ba déclenchement amee moom la ko Kouwén si wax ne na ko yow lu ci mën a xew mooy mal dàq bari ma ëpp doole te itam jàpp naa ne sama fan nga daan naa ñëw sa. Euh, foofu 600 mètres ba rëbës di seet ay nit bu ma génnee say fans si dogale ma naan na da nga maa dama dama la war a jël mu ne ko nag loola tey am na te itam jàppal ne foofa du làmb ja loolu la ko Coen wax ma moteur tontu ko ne ko du ma sa fan da nga doon def lu tax. ma gis ko muy lu rafet ma magnifié ko parce que man Baye Fall la loolu la ko Double Moteur tontu xamal ko ne ko tamit bu ñu sëggoon léegi ma wane la parce que xam naa say secret mu mel ni ki nag ñoom ñaar dèjà teel na ñoo wane fi ñu jëm mu ñaari xale yoo xam ne tey ku ci ne maanaam dafa am loo bëgg am foo teg sa tànk am foo war a dem muy làmb joo xam ne itam wax dëgg yàmba wax dëgg yàlla làmb xale la kon Baba Diaw tamit mention spéciale di ko wax tamit moo ko waa Thiam yëpp ñoom am di ñoom Abba ak Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne moom moo koy doxal lépp ak ku mel ni ñoom Jibi Ndiaye ñoom it ñu nga foon ak ñoom waaw Modou Roubé gars yi ko wër yëpp daal di leen ñaanal yàlla réussite ci bis yi nga xam ne dugg nañ ci et puis itam comme ni may wax rek di ko ñaanal promoteur yëpp ndax dana ma naan promoteur yi yëpp nday Kumba Fall ñoo bokk nday ñoo bokk baay parce que seen xaalis la jël joxe ko di xaar xam nga kon ku ci dugg ci dara yàlla na nga ko réussir waaw nuy di nuyu nga xam ne mooy Assec Cheikh Koutia di nuyu ki nga xam ne mooy taalibu Cheikh bu Guéro depuis Italie di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Bey euh, Baye Fallou jàmmagan Pape si tey aussi yaa ngi si biir du ma la fàtte du fàtte ki nga xam ne mooy Jibi Bamba ak Sophie Loul euh, di Magu Ball depuis France aussi maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni rek Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm def ko si àddina bi nawet bi ñu dugg comme duggee bisimilah rahim yàlla nañ ci génn ak alhamdulilah rabbil alamin mu nekk nawet bu am barke te naat lu ñu ci bay rek yàlla def ñu muurloo ko barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam encore une fois rek di nuyuwaat waa Petersen di wax jib seen mention spéciale maanaam si yére yi mook euh, Babacar bu muur la ma ak Mori Diouf xam nga ak Cheikh Lambaay du leen mës a fàtte mukk ak ki nga xam ne mooy Abdou Sakho di xaritu muur la moom tamit nekk commerçant a baax tuuti yaay Sarr du ma ko fàtte xadiroos ñoom ñëpp nuyu naa leen di nuyu daal fépp foo xam ne nii soppee mu nga fa xam nga ndey ma faal du mën a ñàkk maam libaas lo moom tamit duma ko fàtte bu baax Serigne Diour mais yàgg maar daal loo ci mën a dégg moom taw bi fi mu nekk nii neex na te xam naa boo amoon cuuraay am fu ñu la ko suuree dana baax